jàmm li ñuy ñaan fii ci Sénégal. salaamaaleykum mbokk internet Dakar instant mbégteeg kontaan la ñu am saa su ne di leen fi dalal ñoom ñi nga xamante ñooy borom xam-xam yi kii nu fi daral tey du ne guléet muy Serigne Cheikh ñaan borom résultat bi man nee naa ko baat boobu moom ci moom dong laa ko dégg mooy borom résultat bi waaye bala ñoo xuus ci waxtaan dañ koy bàyyi mu nuyoo képp koo xam ne mu ngi ñuy bàyyi xeel fii ci Dakar instant Serigne Cheikh nan la. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, ñu ngi leen ñu di leen siyaar euh, di ñaan suñu borom mu def jàmm ci Sénégal yaa Sénégal sax si jàmm bisimilah Serigne Cheikh ñoo dugg ci waxtaan wi te da ngaa da ngaa raaroon da ngaa génnoon dëkk bi xawuñu da duggoon xalwa xaw ma Serigne Cheikh foo nekkoon voilà dëgg euh, donte doomu aadama moom à chaque fois donte li muy liggéey tant que wax nga ko si biir wax léegi ne résultat mhm. tant yaa ngi koy def day tax doomu aadama di la mën a wollu fu ne mhm. nga may dem fu ne di mën a jëflante ak ñoom waaye ku ko yàlla dogal na ñun toog si réew bi bariwul tay li ñu ko tàmmale ku ko toog suñu toog si réew bi bariwul dinañ ñëw profité ak lépp loo xam ne daan nañ ko def ak jaamu yàlla yi ñu koy partager ak ñoom di ko mën a jëflante ak ñoom eh, seen xol di sedd daal waaye eh, demoon nañ ci ay voyages yu bëree bëri yoo xam ne ci yeneen dëkk yi façon yooyu la da jëflante ak naar yi ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nekkuñ biir Sénégal gi eh, incha allah kon da ngaa génnoon Sénégal daal voilà man damaa génnoon Sénégal actuellement jërëjëf loolu am na solo kon ñi ko doon laajte sëriñ Cheikh boroom résultat mu ngi noonu daa tukki woon ci tukki yoo xamante ne taalibe yee ko woolu woon waaye Serigne Cheikh dañuy ñëw ci tolluwaay réew mi. Mm-hmm. dëkk bi jaxasoo senegal Sénégal jaxasoo na. Mm-hmm. ñii nee ay rab dañ fee bari. Mm-hmm. ñii nee nañ def ko tu ñaawteef yi la. waaye yéen ñi nga xam ne suñ borom dimbal na leen ngeen am as ci gis-gisu baatin. naka ngeen gisee tolluwaay réew mi. alhamdulilah euh, rab am na. maanaam lu ma bëgg wax mooy rab am na ñu ne rab am na am na ñu ne rab amul mais rab moom amul pour rab amul rab amul déedéet lu am mooy jinne joo xam ne day nekk ci doomu aadama di ko yàqal mhm. ak rawaxaan bi nga xam ne mooy nekk ci moom spécial di koy yàqal moo xam rawaxaanu safara la moo xam rawaxaan bu mu mën di doon mhm. ñaar yooyu mën a yàqal nit mais rab moom mhm. amul bu fekkee nag dëkk bi dafa yëngu ba yëngu yenn saari yëngu yi day fekk réew mi laaj sarax xam nga réew mi dafa boo xam ne da koy defal mais xam naa ne dañoo génne ko sarax réew moo waral réew mi yëngu ndax at mu ne am na ab saraxam. mais rawaxaan ak rab lan mooy seen différence. rawxaan ak rab. Mhm. bokkuñ benn différence si benn côté. rawxaan rawaxaan la. Mhm. rab amul nee naa la rab amul. rawxaan moo nekk rawxaan léegi nag olof ñëw di wax rab. rawxaan la naan rab. rawxaan maanaam olof moo mooy wax rawxaan rab waaye rawxaan moo am. Mhm. moo tax alxuraan wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa li yaxbuduuni mhm. léegi nag est-ce que jàng baqara banaas fi yàlla wax wax benn suura boo xam ne dafaa wax rab rab amul mhm. jinne moo am joo xam ne day soit day nekk jinne ju su at jinne ju garaaw joo xam ne day yàqal doomu aadama bi mhm. léegi loolu bu noo koy xamee ci rawaxaan bi nga koy xamee mën a xam ci ban façon jinne moo ko yàqal Mhm. bu fekkee da nga koy defal sarax nga defal ko sarax mhm. bu fekkee da nga koy defal ay sangat nga defal ko sangat bu mhm. fekkee da nga koy defal nga defal ko leneen mais man nekku tout le temps ñëpp laay sangat comme noonu la ko waxee woon sama émission yi la jàll nit ku nekk bu ñëwee ak lañ koy defal rek Serigne Cheikh ci doon nga waxee eh, wàllum rab Serigne Cheikh kon da ngay faj rab ndax rab gaa yi bëri nee nañ rab moom daa bëri bagage waaw man loolu bokkul sama activité ay faj ay rab ak yooyu bokkul sama activité mais li may gën a def mooy nit ki li nga xam ne daf koy yàqal bu ñëwee damay xool li ko yàqal lan la foog mu consulter ko parce que consultation lay doon parce que tey yu bëri woon hôpital médecin bi lu mu la njëkk a defal mooy dina leen consulter. Hmm. léegi bu la consulter ba pare. day hmm. xool sa jàngoro lan la bu fekkee téye hôpital moo ci war. Hmm. mu téye la hôpital bu fekkee samp bitel moo ci war. mu samp la bitel. bu fekkee yeneen ak yeneen moo ci war mu def la yeneen ak yeneen bu fekkee naan jox garab nga naan mu jox la garab la nga dem. mais man nekkul ne ñëpp laa jox sa ngat. léegi tey ki nga xamante ni dafa amee tawat. maanaam rab ko. tey bu ñëwee naka ngay. ndoxum cité du ma ko faj euh, ndoxum cité du ma ko faj ku yor ay àndandoo ba ñëw du ma ko faj ku kii jàpp euh, noo ko waxatee léegi jabet yooyu du ko faj. sëñ Cheikh kon ci ban ci ban côté lay lay lay faj. affaire bi nga xam ne moom laay gën di def mooy affaire yokk awara kooku moom la ma koy liggéey yokk awara ko sama domaine la bu ñëwee exemple tey ni ma la ko waxee woon yaay xool nu bëgg mu toll ko yaay xool dama lay jox bant na exemple tey yaay yatt nga xool. Mhm. nga xool nu bëgg sa awara toll ko. Mhm. ñu defal la ko. bu fekkee ab distance la. Mhm. dafa am loo xam ne moom ngay def appel vidéo ngay woote wala leneen ak leneen ñu xool. Mhm. ni nga bëgg sa awra toll ko sa awra toll ko. kon daal sëñ Cheikh su ma la déggee da nga spécialisé ci wàllum yokk awra. waaw yokk awra dama koy def. Mhm. waaw parce que ci wàllum yokk awra googu sax defe naa ne am na ku ne woon. loolu mënta nekk. ah kay mën naa ne yokk awra mën naa nekk. Euh, am na ci ñoo xam dañu dañuy defe ne yokku yokku kattan moo mën a nekk mais yokku awara mënul nekk kooku xam naa dafa nekk sans nit yi nga xam ne mhm. dañuy liggéey ci affaire kattan mhm. xam nga ku mën a yokku kattan du mën a yokk awra moom da lay mën a defaral kattan mais du la mën a defaral awra ah, kon bokkuñu bokkuñu dafa am différence hmm. waaw suñ Cheikh na euh, léegi euh, awra bi tey buñ ko yokkee mhm. day ànd ak kattan gi wala ni moom rek man bu la yokkalee da ngay am kattan maanaam da ngay yor doole juróom-ñaari mbaam doole juróom-ñaari mbaam waaw léegi loolu am naa loo xam ne ci ci laa koy liggéey. Mhm. bu ma ko ci liggéeyee pendant sept jours bu ma ko ci liggéeyee ba pare. Mhm. Euh, dafa am fu mu lekk ko defal loo xam ne da koy naan. Mhm. am na si boo xam ne naan la am na ci boo xam ne da koy lekk. mais boo ko lekkee rek rapidement rek euh, da gis ne sa awra day yóbbu. allah. jërëjëf Serigne Cheikh ñaan borom résultat euh, boo ko bëggee jot wooteel ci 78 88 78 baal leen ma 886 65 65. 78 170 45 38 Serigne Cheikh damay ñëw ci euh, wax nga ko léegi tukki bi. Mhm. ñi nga xam dañuy nekk bitim réew. Mhm. ndax tamit nag saa saa nga dégg ci ku la woon ne la Serigne bi daa joxoon sama xaalis mu lekk ko. saa saa nga def alhamdulilah loolu moom ñu koy def moom mooy ñi nga xam ne demuñu fa waaye ñi nga xam ne jóge nañ fa ndeysaan ñi ngi siyaaru Omar. Mhm. ndeysaan ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nekkoon nañ foofu. waaye ñi nga xam ne tout fay dem ak nu mu seddee na dëgg yàlla seddu lool sax nga xam ne fajar rek euh, mënoo fexe ba jóg parce que sonn ak ñooñu dañuy daj foofu mhm. damaa defee ne ñi nga xam ne demu ñuy foofu duñ ci mën a xam lu bari mhm. waaye ñu ñi nga xam ne dem nañ ba àgg foofu mhm. ba ñoom wallaay da nga leen di yërëm parce que nees bi euh, sedd gu muy sedd rek ah xanaa xanaa bitim réew war nga faa a bëri sedd bi moom wàllum yokk awra gi moom dana fa war a mën a dox <laughs> alhamdulilah euh, na dëgg yàlla moom ñu ngi ci jëflante ni ku ku ne waaye lépp loo xam ne am nañ ko daal résultat moo ñu ko may résultat mais sëñ Cheikh fan la teg résultat bi résultat bu ma waxee rek nga am résultat. waaw résultat sëriñ bi képp koo xam ne day liggéey am mbir. Mhm. maanaam nekk ca euh, ren ba déwén. Mhm. te gisoo ci ak yokkute. Mhm. xamal ne kooku lu muy def mënu ko. waaw loolu am na. waaw kay kooku ne lu muy def mënu ko waaye koo xam ne euh, bu defee nit. rapidement day gis. kooku moom na dëgg yàlla moom. kooku mu indiwaat keneen keneen keneen keneen ba yooyu yëpp am ci. Mhm. voilà kon résultat bi foofu nga ko teg. résultat foofu laa moom euh, wax naa leen ko ay yoon ndax dëgg yàlla man moom dama sant tout le temps euh, kooku moom sama domaine la. wàllum këyit képp koo xam ne amoo këyit maanaam nga nekk Europe nga am problème mu këyit. Mhm. boo ma wooyee dama lay seetal ba pare su ma lay seetal ba pare damay xam damay xam euh, damay xam këyit li ko téye lan la. Mhm. bu ko defee sarax bu fekkee sarax la ñu war a génne ma def sarax mhm. defal la ñaan mhm. euh, am loo xam ne ay santaane la defal la ko say kayit mën a génn léegi ci wàllum kayit googu comme ni nga ko waxee tey bu fekkee ni dama am sama waaju nekk Europe bëgg ay kayit naka la ñuy jokkalante ci whatsapp bi la ñuy wax nga jox may tegtal mhm. wala naka lay naka lay demee alhamdulilah moom damay woo bu mu wooyee ba pare dama koy seetal bu ma ko seetalee ba pare bu fekkee affaire papier dongal ku tur yaayam kese laa soxla ak turam Hmm. astaghfirullah bu fekkee affaire këyit la moom turam kase laa soxla turu ma soxla ma turu yaayam hmm. léegi dama jox turam kase ak euh, dëkk ba mu nekk hmm. léegi foofu laay jël ma xool ko ma adat ko calcul ko jël rawaxaanam dugal ko ci turu kii bi ma mat am naa nu ma koy xool da noo xam ne damay euh, damay am résultat yu leer nañu daal ci ki nga xam ne am na ay kayit wala am na ay parce que nit ñi dafa bari ñoo xam ne dañuy wax la saar la saar la saar te xamuñu sax yaa ngi dégg mm-hmm. xamuñ luy sarax maanaam suur bi nga xam ne doomu aadama daf ko war a génne sarax am na ci ñoo xam ne dañoo ñaanlu ba àddina tukki bañ tàmbalee ñaanlu ba léegi gisuñu dara mm-hmm. xam nga lu waral loolu lu waral loolu rawaxaan bi ñu àndal la soit sëriñ bi nga xam ne moo leen di ñaanal mënul dagg xaatim parce que mm-hmm. mën ngaa dagg xaatim jox ko nit mu sangoo ko mu dëj ko ngir dundam waaw loolu bëggoon naa koo laaj ci wàllum xaatim googu ndax itam bu fekkee da ngaa ñëw ci sëriñ ñu dig ñoo rabbana iftah baynana wa bayna xawmina bil xaqi wa anta xayru fatihina alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka nahmadu wa iyyaka nastahin ñu ne la maanaam exemple tey di nga jël fatiha aay bu ci nekk nga boole ko fattaaxu fattaaxu yi nga xam ne moo nekk ci alxuraan wala ñu ne la aay bu ci nekk da nga koy boole ak mubiin yu nekk ci alxuraan mubiin juróom-ñaari mubiin yu nekk ci suratu yaasin xam nga ba du sëriñ su ko xam sëriñ su bari jànguñ xamuñu sax luy alxuraan far kon est-ce que ñooñu ay sëriñ lañ kon léegi nag ñooñu bu fekkee dañoo jël dara jël benn alxuraan jox la léegi bu ñu la joxee alxuraan jooju boo ko sangooy mën na laa tëj sa ngir dund. xaatim ko damm nu muy def. léegi benn xaatim bu damm ni nga ko xamee mooy nit ki suur bu ko njëkkee sangu. Mhm. dina gént dina gént moom. Mhm. mu feebar. Mhm. mu feebar soit mu gént accident. xaatim bu damm. képp ku génte li xamal ne sa xaatim xaatim bi nga sangoo dam mën a wala nga sangoo baaxul léegi nag beneen bi dama ciy ñëwaat muy année bii nga xam ne nekk nañ ci képp koo xam ne takk nga jaar boo xam ne jaar burus la kooku moom mën na koo tekk te xam ne sëriñ bu jaar burus bi mu la mhm. mhm. a takk ma xool li euh, xool affaire am xoo waaye bu ma xoolee dëgg-dëgg daal rawaan ba daal na dëgg yàlla ak jaaro bi ko waaj jox bokkuñu ba xam ne kii moom nar naa tëju. Hmm. maa ko tekkaloo démb waaw. lu waral jaaro jaaro kii bi. loolu lu la ci musal mooy seet ak xam-xam-xam. mais jaaro bi lan moo tax ñuy tekki jaaro bi xam-xam-xam maanaam loolu rek moo lay mën a may sens pour nga mën a ñaar doomu aadama mën a gis résultat rapidement. mais sëñ Cheikh daa mel ne yëf yi da nga koy tënk ci benn place. jaaro bi la xam nga at mi nga xam ne ku ci takk jaaro wurus te xam nga ne jigéen ñi ku leen bëgg a tekkiloo seen i jaaro jaaro wurus képp koo takk koo jox ah, bu la sëriñ jox yaa ngi dégg mhm. wax lañ ne la pour affaire alal la yokkate la am am la mhm. jaaro bu baaxul parce que anam bi nekk nii dafa am ay genre buruj yu taxaw buruj mhm. xam nga bëri sëriñ si ko xam loolu spécial dañ koy jàngale dañ koy jàngale loolu genre xam-xam yooyu loolu nature lañ koy wax nature xam-xam bi nga xam ne dafay dox ci wàllum dañuy dox ci wàllum àdduna jërëjëf Serigne Cheikh ñaan borom euh, résultat loolu moo wax am na solo ci at mi ku ci euh, Serigne jox jaaro boo xam ne jaaro wurus la mu na nga ko tekki la mu ci wund nag wala la ca la nekk ci biir xam nga man sama xam-xam daa bëriwut ndax sama bopp bi daa ndaw hmm. waaye Serigne Cheikh euh, xam naa li ñu dese ci waxtu sax bareetul waaye damay ñëw ci loo xamante ne soxal na askan wi hmm. muy wàllum am-am la yaa ko tudd léegi hmm. am-am bëri na nit ñi ni ñu koy wutee loolu ñuy sant yàlla bu baax doomu aadama moom képp koo xam ne dalaa wax ne la kaama ñaanal la nga am hmm. te moom yurul lu yurul loo xam ne mën na koo lekk kooku moom jëru sax koy gëm nit ki bu la ñaanal moom ci boppam dafa war a am hmm. ngi dégg moom bu doon laa wax du jëm ci wàllum alal mais bu hmm. fekkee koo xam ne fekk nit koo xam ne sax lu mu lekk amul lu mu naan mun na la ñëwal ma defaral la alal nga koy gëm gars yi ñu ne yëpp yu bari ay xeetu dóor la dóor waaw voilà dóor gi weesul ne mooy euh, ñëw naa sëriñ laa damay ñaan yow xamoo xaatim xamoo mu sallas loolu hmm. képp ku koy def rek xamal ne kooku ab durkat la léegi dèjà ñooñu ñoo yàq jamono ji ba nga xam ne hmm. wóolatuñ kenn hmm. waaw parce que dégg nañ fii ñii ñeneen ñi ay gaara ñaar lañ woon ñeneen ñi dañu nekkoon ay kër sëriñ jigéen yi ay moroog yu kenn xamul <laughs> yaa ngi dégg léegi yooyu yëpp dégg nañ ko ñoo xam ne ñii ay sëriñ lañ am na ci ñoo ko ne sax ay yu kenn xamul la ñuy woote woo leneen la ñuy woote woo fi ne. Hmm. waaw waaye képp koo xam ne wóotuwul li dul alxuraan. Hmm. ak kurus ak turu yàlla kooku nga xam ne dañu ni normal hmm. waaw lii daal mooy li nga ne mooy doxal àdduna. jërëjëf Serigne Cheikh euh, nee naa la yëf dafa toll na mais am-am gi ba tey dafa am loo xam ne gars yi dañ koy laaj. ñii dañ naan la. da nga am-am bu gaaw léegi léegi léegi maa si gaaw. am am tey tey tey. nit ki maanaam loolu laa bëgg nag ndax gars yi loolu soxla jàbbet loolu loolu dafa dañu koy liggéeyee. ñun lu koy liggéeyee mooy am na la defal loo xam ne. Mhm. dan la koy fal maanaam boo bëggee ñu fal la ñu fal la. Mhm. boo bëggee ñu bu fekkee da ngay boo bëggee ku fal ñu fal la. Mhm. ba ñu waree ñu folli la ñaari yi moo fi nekk. maanaam ci ci am-am gaaw yow da nga koy. fal am bu gaaw tey tey. tey tey waaw. nga am nga nekk maanaam nga yor loo xam ne du jeex. loolu moom juru sax ñu jëli parce que loolu ku la koy defal moom danga koy xool ca kooka. Mm-hmm. waaw kay bu la waxee ma defal la lii bu xool ba xam normal la wala normalul jërëjëf loolu no comment laa koy def ni ma koy waxee no comment. amul benn sangat am na benn sangat gu ma daan defal sax boo xam ne euh, sangatu samsuku yusin la. samsuku yusin. waaw. boobu man xeetu sangat moy sangat bi nga xamne xam nga defoon len interview mo wane ben sunguf bo xamne day and ak xaalis bi comme yaa ngi koy fatale ko waaw ci ci la doon bëgg ñew sax da nga loxati sama lanc rek <laughs> sunguf bobu bi sunguf xaalis ak sunguf benen bi bu waji damay bañ wax tur bi <laughs> waaw wala waaw ya ko laal nak legi saaru sunguf hmm maam kep ku ngi koy defaral day and ak euh, day and ak 126 b 126 b b waaw b hmm mom lay andal ñu jox la sunguf bi nga sangoko kooku boo ko songee àddinay tukki kenn mënu laa tee fay doo fay danga am alal danga nga am wërsëg képp ku la liggéey faatu. tarkal waaw loolu mooy sangat bi nga xam ne dañ koy joxe pour ci wàllum alal. maanaam mhm. képp koo xam ne dafa bëgg alal si lu gaaw a gaaw. Mhm. boobu moom na dëgg yàlla. Mhm. dañ koy liggéey. léegi nag nañ xaw a bàyyi suñu wàllu euh, temps yi dañu gis ci internet bi xaw nañoo naqari daal wax dëgg yàlla ay ñoo xam ne ay zone lañ mm-hmm. nekk fii ba États-Unis wala feneen ak feneen am na si ñoo xam ne sax xam naa leen man samay xarit lañ mm-hmm. waaye man dama ko tax na man colère gi dama ko mujj dagg maanaam donte mm-hmm. moom xam na bu baax xam muy ma bu baax man xam naa ko fekkente woon nañ Italie moom xam na bu baax man xam naa ko man du ma du ma tur am na ci koo xam ne sax keroog euh, dajee nañ ci aéroport Dubaï bii. Mhm. day mais nit ki daal loo lépp loo xam ne yaa ngi koy mën di kaa def. Mhm. Euh, de ci de ci de ci tere say waajur. Mhm. te am ay teggin. am yar bul xas ku la mag bul saaga ku la mag. képp ku la féete mag nga wekk ko. lépp ab jullit noonu la war di doxee mais nekk ci internet bi di saaga ay ndey. loolu ku ne xam ne ne jeer bi yoon. ay mille de personnes de seetaan loolu képp ku ñëpp xam na ne loolu moom ku ne xam ne ne jaarul yoon loolu nañ ci bàyyi xel. Mhm. Mhm. Tubaarkalla jërëjëf sëriñ Cheikh Niane borom résultat nee naa la képp koo xam ne am nga problème mu xaalis moom mi nga xam ne mooy bàjju bi moom la ñëpp di wër boo ko seetsee bu ci yàlla àndee sa aajo dina faju képp koo xam ne am nga tamit problème mu kayit dégg nga lu ci wax moo ci aay. non papier moom. Mhm. Euh, à chaque fois ñu ngi koy ñaanal ñëpp duñ gis xam nga lu waral loolu lan la. Mm. day fekk ñu tour ken papier yi kenn kenn waru koo génneeloo di tur dret hmm papi sëriñ bu lu ko gënël tour lo dret rek xamal la sa bi lu baax bu lu son ba ila diine ci di tur dret sa affaire du baax macha allah voilà dégg ngeen leeral yu am solo yooyu mu ko wax képp ko xam ne danga mu ngi lay ñaanal ci walum këyit di la lo dret da ngay son rek waaye do ko am yokk awra tamit mo ci man mo ci tek tank waye tamit eh, nee len Serigne Cheikh li tax gaay tuddé ko borom résultat bi mm-hmm. gaay ko xam mm-hmm. ndax itam koo ci wax mën la borom résultat waaw alhamdulilah ñun moom li ma la waxoon rek bu ñu demee ba nga xam ne dem nañ ba Sénégal moom ràpp dañuy hmm. dellu fan jóge woon takk seen bagage nank dellu fan jóge woon parce que ñun hmm. naa bu dee wàllum am am moom xam naa ne yaakaar naa kaw gale gën a bëree kon nag hmm. ñun bu ñu ñëwee dañoo fas yéene dimbali waa Sénégal kon na ñëpp xam ne dañoo fas yéene dimbali waa Sénégal am du dëgg léegi ñaar weer rek moo fi nekk léegi nag ki nga ki nga client bi nga xam ne dafa jug pour ñaanlu kooku bu ñëwee day ànd ak yar ak teggin mm-hmm. ah mm-hmm. loolu mooy li nga xam ne moom lay mën a sàkku ci sëriñ bi mm-hmm. ngir sëriñ bi mën koo jox li mu yor bu dee bu dee lu baax la mais bu fekkee sëriñ bi nga xam ne xamul dara moom boo ñëwee moom amul yar amul teggin da nga naan ko xaalis laa yor rek jaay ak jënd la doon mën na la jox ma nga nga jox ko heurel am doo gis ngay waaj nax na ma loolu loolu moo fi am macha allah voilà yan kàddu ngay tàggatoo ñu ngi sant yàlla bu baax di julli yéen bi Euh, na dëgg yàlla di sant si Amadou Bamba Seye borom kurus gi. Mhm. di sant euh, euh, ñu baree bari na dëgg yàlla sumay xarit lañ na dëgg yàlla samay wëlëre yu baax baax. Mhm. di sant képp koo xam ne kii la di sant sama benn xarit bu ñuy wax si da mhm. ñu bokkoon nekkoon ci ay tournages fan yi génnoon dem ci bitim réew. ñu mhm. ngi koy sant ñu ngi koy sant bu baax. Mhm. Euh, di sant yéen bi nag dëgg yàlla ñu am kóolare ngeen daal. Euh, di sant euh, Souleymane. Mhm. Simer moom nga dëgg yàlla ku baax la. di ñaan suñu borom defal ñu jàmm ci Sénégal yàlla Sénégal sax si jàmm. wasalaam. jërëjëf Serigne Cheikh ñaan borom résultat yi nee naa la boo ko bëggee jot am jafe-jafe wooteel ci 78 886 65 65 wala 78 170 45 38 Serigne Cheikh ñaan borom résultat.